oui je je oui on amaguñu amaguñu candidat mais on a déjà de bons profils je peux même dire de très bons profils qui son candidats à la candidature et sur le terrain parce que les militants et les responsables son en train de s'activer euh, pour dynamiser la base de sorte que quand la décision boo xamante ne dafay wax ban candidat mooy mooy mooy sunu candidat dana fekk lépp yemb ñëpp mën a jublu continuer en tout cas li ñu doon def ci wàllu liggéey ci mobilisation jëm ci élection euh, présidentielle 2024 ah, bon euh, fu ma bëgg a ñëw moom mooy euh, gis nañ ne élection yi di ñëw waa waa waa Euh, comment dire avant am na ay entité yu bëre. Mhm. Euh, ñu ngi cité ay noms. yoo mhm. xamante ne ñoom ñëpp si euh, benn bokk yaakaar la ñu bokk. Mhm. am na ñoo xam ne ñuy wax APR authentique. ban candidat la ñu war choisir mooy ñoo xam koo xam APR authentique la bokk. ak koo xamante ne euh, bon benn bokk yaakaar la. yow la moo si sa position si si si débat est-ce que il faut choisir koo xamante ne. depuis APR bi ko sosee la la la. la nekk mu ngi APR bi ñu ko sosoo ba léegi. Mhm. wala da nga jàpp ne bon ku ku ku président comme majorité bi lu ñu wax ku président choisir rek euh, kooku euh, moom ngeen wóolu. waaw ku président choisir rek moom la ñuy wóolu d'autant plus que euh, dañ koo jox carte carte blanche c'est-à-dire que moom mooy tànn te ka mu tànn ma jàpp ne kooku ce sera le le choix de tout le monde d'autant plus que. Euh, critère yi muy mettre en place wax na ko déjà mu ni que c'est pas ça n'a rien d'affectif Euh, il va choisir celui qui est le. Un choix raisonnable. Raisonnable et le mieux à même de nous conduire vers une victoire éclatante. Donc je crois que le meilleur choix. c'est celui que le président aura. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un problème de laisser au président de choisir. Mm. président Macky Sall day dem kay bàyyi leen ko mu dem rek yéen ngeen tànnal seen bopp tey bu defee choix bu nga xamante ni yow personnellement arrangé wu la. Mm-hmm. vous allez suivre comme ça aveuglément. oui mais c'est pas xam nga le le pas un choix qui arrange euh, intuitu personnel le choix c'est le choix de celui qui sera à la tête de l'équipe je pense qu'on doit. Euh, de du mieux que possible mm -hmm. ne pas personnaliser les les les les les, les, profils, les directions les, les profils. ne pas les profils ne pas personnaliser les profils rester dans une euh, dans une approche d'équipe et je sais que c'est ça qui va fondamentalement guider le choix du président de la République parce que euh, ce sera un profil qui pourra fédérer le maximum que possible euh, autour des enjeux les enjeux qui sont liés à la consolidation déjà des acquis que nous avons obtenu avec euh, ah, ces deux mandats s'il vous plaît. ok euh, li dina tax mu gën a ñoŋal li nga xamante ne euh, moom président jotoon na ko liggéey mhm. ci mandat yi passé te kay ñëw également dafay daal di continuer la mu doon la doon liggéey donc pour moi euh, dafay doon choix boo xamante ne dana mën a boot njaboot gi yëpp en tout cas même bu mënul boot njaboot gi yëpp lu ci bëri mën a ànd ak moom soobu ci liggéey bi ñu jàpp ne lañ doon lañ doon lañ doon euh, lañ doon lañ doon mëbët wala lañ doon liggéey. Mhm. moo daal di wéy. Mhm. il faut tout il faut reconnaître aussi que tous les profils ñu nga xamante ne ñu ngi leen di tudd amu ci boo xamante ne waroon na trop ak indication yooyu maintenant le reste c' est que c' une question de choix. comme que am na ñoo xamante ne seen choix aussi wala profil yoo xamante ne aussi c' est discutable. c'est très discutable. ah, ah ouais. bon. parmi les. <laughs> non du ma fi nekk di la sutel kenn <laughs> mais. oui je veux dire que yoo xam nga lu ma la wax non. <laughs> mais xam nga aussi. ah d'accord nga xam man. non non non d'accord moo ko yow. parce que ah. ça c'est votre position personnelle. Okay, d'accord. pour moi. Mhm. Euh, nit ñi ñu ci bëri am nañu en tout cas la légitimité politique administrative sur le plan de l'ancrage également war na leen a tax ñu mën ñu mën a yëkkati seen loxo. pour ñu choisir leen comme des comme des candidats maintenant euh, président am na information information yëpp am na ko. Mhm. par rapport ku ci nekk la ngay représenter ak ku ci nekk sa sa sa sa background. Mhm. ak lii tax nit ñi mën a mën a ànd ak yow. il faut aussi reconnaître aussi que président aussi mu ngi discuter ak responsable yëpp dina xam ne fan la nga xamante ne fuñ buñ fa joxoñee nit ñi mën nañ fa mën nañ fa fa jaar mu doon li nga xam ne dafay dafay dafay indi indi ndam pour la coalition